salaamaaleykum salaamaaleykum je m'appelle Mouhamadou Fall alias Jimmy Problème bu ne tous les sénégalais et sénégalaises di masoo coono tous les sénégalais ñu wàccoon si mbedd mi pour ñu ñi comprendre dafa am lu tax nit ñi wàcc si mbedd mi ñu bëri ñu ngi wax na mais comprendre bi mais dinañ comprendre après d' abord maa ngi nuyu force de l'ordre nga xam ñoo nekk ci terrain yi nous sommes des citoyens sénégalais di nuyu garde pénitentiaire yi di nuyu ñi ma doon dimbali ak ñi ma ñaanal di jaale sama bopp di jaale sama yaay di jaale tamit képp koo xam tamit yaayam faatu na ñëpp am nañu yaay ku am yaay am nga bàyyi ku am ndey am nga bàyyi ndax ku li nëpp saa yu xasit moo ci yal na nu yàlla jàppale jàppale Sénégalais yal na yàlla jubale Sénégalais ñun nous sommes des frères et des familles di ñaan yàlla nag Sénégalais yëpp li état appliqué si couvre-feu nan ko appliqué man ñëw ma fii pour critique d'état je suis là pour véhiculer le message pour état comprendre mais ñëmu fii pour critiquer wala pour saboter ça c'est pas des sabotages ça c'est des conseillers nan respecter mesures yi c'est vrai nan respecter mesures yi constitution mais ne état tam respecter sénégalais yi yaa salaam rang